ñaara ko jëkkër jabar ñuy ñaar yàlla buru ñetteel leen jëkkër waree fa mën nay muñu naqar ci biiru sëy dundal ko woddu dëkkal ko ak dëkku ci biiru sëy su la jabar laajee soo amee joxeel gaaw la jabar laaje soo amee joxel gaaw wallaay su la jabar laaje soo amee joxel gaaw wallaay su fekkee la mu la seen émission Téegël ngeen ànd ceeg Darou Alim Store ak seen agence de communication Cocorico أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من سوء ما نفسه من إضلال الهوى ومن إغواء الشيطان ومن غرور الدنيا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 tey ñu ñëwaat yéen ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tegal di leen jaajëfal di jaajëfal mbokk yi fi jàlloon ci seen thème yu am solo yooyu tey nag ñu war a jàngat bu ama am solo mm, boo xam ne euh, phénomène la boo xam ni laal na réew yu bare bare ci àdduna bi euh, ba yim tasaaro sax euh, maanaam sonal leen lool mu doon phénomène bu danger ci ab société mm, te wolof naan ko lambo lamp nag euh, baat la boo xam ne xëy na fa muy jógee rek mooy euh, ci cosaan lañ ko gën a xamee mooy marchandise marchandise moo xam ni gaaroon nañ ko ci marché bi lu yàgg-yàgg jarul soo boobaa marchandise moom des na ko melal ne marchandise mu lamb la borom doon ko lambale euh, moo xam nag la tax mu lambale benn dañ ko doon jaayee moo cher wala fa nga ko doon jaayee lañ ko bëggewul wala yeneen facteurs yi waral lamb ci ma am marchandise marchandise moom ni ma lambee itam léeg-léegi doomu aadama dana ko lambee doomu aadama itam ki ëpp luñ koy jëfandikoo ci moom muy muy jigéen muy jigéen euh, su ko defee euh, lamb googu euh, ci jigéen xëy na âge bi su ko mënee su koo tënk waaye day wute day wute selon kii yi mm, selon aada yi ak itam barab yi ak itam nit ñi ndax soo xoolee yenn yenn yenn kii yi. Mm, yenn barab yi ñi nga xam ni maanaam daa am yenn aada façon aada ñu yor surtout ñu nekkee ci dëkk cosaan yéeg yooyu eh, mën nañoo yor aaday eh, gëm ne mariage précoce maanaam jigéen moom la a def yooyu ñooñu seen âge lamb mën naa gën a suufe fopp yeneen eh, âge yi mooy commune communauté urbaine yi ak communauté rurale yi soo ko comparé dangay gis ne ñoom léeg-léegi mën nañoo jàpp ne ku yegg vingt ans sax te sa yow mën nañ laa jàppee ne yow ko lamb na Euh, par rapport ak euh, par rapport ak kii euh, communauté urbaine yi ñoom âge lamb mën naa gën a avancer foofu tuuti kon daal âge lamb moom du luñ tënk waaye mënees naa jàpp ni fi mu ne daanaka ku am vingt cinq ans rek maanaam war naa commencé ñaaw njoortu te te amul boroom kër war naa commencé ñaaw njortu ci ne moom xëy na ak lamb mu ngi koy ak lamb mu koy yot kon su defee. Euh, phénomène bi yan mooy yan mooy ay kiiwam yan moom yan mooy ay facteur am maanaam liy waral phénomène bi tasaaroo ci am ci ab ci ci ci ab société ak yan mooy mesure de prévention yi liñ ko mën a wattandikoo kon facteur yi moom bi ci njëkk moom euh, daanaka facteur naturel la boo xam ne suñu borom moo moo ko dogalee noonu muy maanaam jigéen ñi dañ dañu dañoo ëpp góor ñi lool rawatina ci mujj jamono te noonu lay gën demee dañuy gën a ëpp góor ñi ànd ak jigéen ñi ëpp gi ñuy ëpp góor ñi lool bëri na ci ci góor ñoo xam ne duñ takk ñeenti soxna mais benn lañu la ñuy takk am ci itam góor ñi itam ñoo xam ne euh, duñ far duñ far sax takk am ci ñoo xam ne ci yeneen société la ñuy dem takki maanaam dañuy génn takki feneen nga xam yooyu yëpp soo ko boole day gën a may doole euh, phénomène bi muy gën a euh, yaatu ci ab societé bokk na ci itam facteurs yi yi waral tasaaroo bii mu muy ak lamb mooy maanaam euh, réseau des relation familiales yi ak sociales yi su demee ba feebul mooy mbokk gi dox mbokk gi maanaam mbokk gi ñàkk a xamante ak dox mbokk gi wàññiku euh, nga xamee ay famille yu ndaw rek am famille yu mag yi daanaka léegi xamante xamanteetuñ euh, maanaam ñu bari jóge seen dëkk cosaan dem ci ville yu mag yi dem dëkk fa sos fa maanaam seenu njaboot màggee fa yaroo fa te duñ dellu ci seen dëkk cosaan yooyu xamanteek ak seen seen seen seeni seeni famille yu mag ak yu demee noonu loolu itam bokk na ci li li waral lamb gi ndax li mu koy waralee mooy maanaam ñooñu fañ tuxu euh, ñooñu ay ñu tumuranke lañ fa maanaam ay étranger lañ fa parce que ñoom ñeneen ñeneen lañ fa dajal ñoo xam ne itam dañoo jógee ci seeni ville ci seeni dëkk cosaan ñëw fa nga xam ne xamantewuñ maam ak takkante du fa yomb te ñu bari ci ñoom sax danañ gëm dañuy yor maanaam philosophie ne man daal euh, sëyu mbokk laay def maanaam sama mbokk laay takk ñi itam sama mbokk laay sëyal nga xam ne kon kii maanaam perte na foofu chance bu bari pour mën a sëy nga xam ne fa mu doon amee change bu xaw a bari mooy ci ay mbokkam euh, foofu te foofu xañ nañ ko ko ndaxte daanul dem ci ay mbokkam xamul ay mbokkam wala yu demee noonu loolu yi itam bokk na ci facteur bi waral ak làmb euh, bi ci topp maanaam mooy euh, facteur bu am doole boo xam ne mooy commencé tasaaroo ci suñu réew yi mooy maanaam njàng mi njàng mi ci góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ndax da ngay gis jigéen ñu bari jamono ji ñu leen di bëgg daanaka mooy Euh, jamono ji ñuy soog a mat jigéen euh, nga xam ne léegi mën naa am ñu fekk ñuy def BFEM wala ginnaaw BFEM bac jàpp bac affaire yooyu côté yooyu nga xam ne jamono yooyu ñu ci baree bari euh, dañuy surtout su doonee ku amub taar sax mën naa gis guro yu baree bari comme ni ñu koy waxee ñu bari di ko bëgg di ko gaara seenu mbëggeel waaye waaye bëgg ko soxna mais man na di leen gàntal moom ci boppam ne leen man damay jàng wala sax ay parents gàntal leen ne leen sama doom day jàng su ko defee Euh, mu ko mu ne damay continuer sama njàng ba pare soog wuti borom kër soog a sëy su ko defee nag mu bëgg a tàmm mu bëgg mu bëgg a topp topp système LMD def bac licence euh, master doctorat bu ci jàppande su paree nag fas yéene wuti liggéey su jàppande soog nag dugg ci ab sëy fekk ne moom jamono jooju ñu ko doon bëggee jamono ju ndaw ndaw la joo xam ne daanaka euh, suñ borom a ko def ci moom nga xam ne diggante boobu ñu baree bare dañ koy xemmeem diggante boobu nag su weesoo di jamono bu gàtt daanaka pour mu amaat chance ba mu amoon mooy ñu bari di di di ñëw di ko tàll seen guro comme ni ñu ko waxee euh, du yomb dootul yombati ndax ñu ña ko doon xemem sax ñu ci bare bari fi mu ne takki nañ feneen wala sax léegi xemem googu nekkatu fa wala yu demee noonu euh, te boole ci moom su jàngee ba pare rawatina su amee liggéey wala doon fonctionnaire yu demee noonu euh, maanaam moom fi ne day day wër koo xam ne maanaam moo ko ëpp niveau ci wàllum njàng wala ku toll moom du moins euh, waaye bëggul nag euh, maanaam am am am jëkkër joo xam ne xëy na moo koy raw wala moo koy moo moo koy gën a taxaw situation famille kii euh, économique maanaam yu demee noonu ci te ci jamono jooju muy wër bi moom teg critère am yooyu ci su ci ci biir société bi am na ñoo xam ne itam ñu ngi koy daw ci ne moom ab intellectuel la léegi fonctionnaire est-ce kon sëy bi soxla ci société bi est dana ko man est dana mën a yoroo njaboot dàngam nangam ñeneen itam euh, di ko dawaale ci am complexam parce que nee nañ ab intellectuel léegi est-ce que man su ma su ma amee ay sentiment ci moom su ma ko waxee sax est-ce que duma ma est-ce que du ma nangam yooyu ak yu demee noonu nga xamee kon moom ak lambam day xëy di gën di di di gën di dëgër muy gën di lamb di xëy di gën di gën di lamb ginnaaw ba mu jàngee ba pare euh, ba mujj sax mën naa mujj euh, obligé ba nga xam ne su amee benn waaye sax buy xëy di jommi jommi suba ngoon di fóon lu bon di ko tox wala di ko naan day daal di jël ngir obligé gu metti ak lamb gu metti loolu itam di euh, feno di facteur boo xam ne bu am doole la bu commencé tasaaroo te ñu bari yeewuñ ci euh, ñu bari itam jàpp maanaam sëyeeg njàng mënuñoo ànd te mën nañoo ànd bu baax a baax facteur bi ci topp mooy maanaam euh, chômage bi chômage bi xam ngeen ne comme sëy niñ ko waxee woon ba jàll kii la responsabilité la kon su ko defee chômage moom su tasaaroo moom góor ñii itam duñ mën a duñ duñ mën a wut soxna ndax ndax ndax ku amatub liggéey doo mën a gàddu yenn responsabilité yooyu itam euh, bokk na ci facteurs yi may doole phénomène bii di lamb bokk na ci facteurs yi yi may doole itam phénomène bi ba léegi muy maanaam euh, xew li ci jëm muy li tàmbalee can ak euh, retail yi ci topp mooy tuxoosaat yooyu yooyu yëpp su demee ba cher maanaam can cher maanaam kenn ku ne di wane ne mas di di di di seerlante can euh, ak ya cay topp euh, may gu njëkk may gu nangam affaire yooyu may gu mujj ak xawma lan ak lan dégg nga maanaam euh, pooju nangam yooyu su demee ba ba aada yi bari ci nga xam ne dañ koy dañ day nekk loo xam ne lu ëpp lu lu lu mënta ñàkk ci sëy bi faaw nga joxe ko may gu njëkk may gu nangam joxe fële nangam nangam ak can gi ak yooyu. loolu lépp soo ko boolee mu doon lu cher mujj gi góor ñu bari dañ koy waaj ñi ciy dugg nañ ci waaj bu baax a baax pour man koo jekku ñii sax maanaam duñ ko man ngir maanaam cher gu mu cher yooyu itam day waral euh, phénomène bi tasaaroo ci ab société. bokk na ci lay waral itam phénomène bi tasaaroo ci ab société mooy relation amoureuse su demee ba yomb maanaam kenn góor ak jigéen di mën a ànd fu leen neex di mën a ànd ay ataat di di di foo ko caaxaan. góor maanaam góor heure bu soxlaa jigéen man koo am jigéen heure bu soxlaa góor man koo am ci ak mooy yàlla ak yu demee noonu yàqu tasaaroo yooyu itam day may doole phénomène bi ndax day mujj ba ñu bari maanaam loolu di gën a euh, takk soxna wala wut borom kër ndax yooyu responsabilité yi cay nekk euh, ñoom dañ koy daw wala yu demee parce que lee moo gën a nooy ak yu demee noonu loolu su boobaa day day day day day day may doole phénomène bi. Euh, bokk na ci itam facteurs yi mooy facteurs yoo xam ne personnel la mu ne su koo takk euh, facteurs yoo xam ne day wute day wute léegi sënoo nit ki dangay gis koo xamee la tax moom mu ne du takk soxna xëy na ci am njàng nekk euh, moo tax du am du takk soxna wala ci wala ku jigéen ki itam du sëyee ndax ci am njàng la nekk loolu daan na am rawatina boroom xam-xam yu diine yi sax bëri na ci ñoo xam ne dund nañ ba seen dund jeex bàyyi fi xam-xam bu am am solo te mosuñoo am soxna maanaam xëy na ci téere yi lañ gënaloon ci am soxna ak yooyu demee noonu loolu itam ay facteur personnel yoo xam ne li muy am xëy na bëriwul loolu itam doon ay euh, day doon ay masaayil yoo xam ne borom xam-xam yi wax nañ ci ndax takk soxna moo gën wala euh, wala wala dem di jàng jàng ci xam rek bàyyi takk soxna ak itam ndax euh, dem di jaamu yàlla bàyyi takk soxna wala takk soxna moo gën yooyu di ay kii xam ne borom yi wax nañ ci itam waaye li ci ëpp soo rek moo yooyu ay facteurs yoo xam ne euh, personnel la léeg-léeg da nit ki dana ñàkk a takk soxna wala ñàkk a sëy ngir ngir ngir loolu euh, facteur personnel yi tam bokk na ci mën na jële ak exemple lu mel nit ki itam tawat mën na ko dal tawat goo xam ne xëy na du mën a sëy wala yu noonu wala su sëyee mën na ci am ay jafe-jafe yu demee noonu yoo xam ne euh, médecin yi saxal nañ ko nga xam ne moom du du du du du du mën a sëy waaw loolu itam di ay facteur personnel ak yeneen kon mën nañoo jàpp ne yooyu mooy facteurs yi gën a fees fi mu ne euh, yi gën a fees ci phénomène bi yi koy gën a may doole kon nag euh, xanaa ñu ñëw rek ci kii yi ci mesure de prévention yi mooy niñ koy wattandikoo niñ koy wattandikoo rek li ci jiitu mooy comme almanara yi ñuy def muy euh, njàngale yi ñuy tasaare di di di jàngale sëy ak importance bi am ak affaire yooyu yu demee nii yooyu itam maanaam moo njëkk ci mesure de prévention yi ñu moytoo kii bi euh, mesure de mesure de prévention yi bokk na ci liñ koy moytoo euh, maanaam phénomène bi ba du tasaaroo ci suñu société yi mooy fexe ba doxu mbokk gi ñu yaatal ko maanaam gën a may réseau réseau des relation familiales yi fexe ba mbokk yu mag yi di xamante euh, su ko defee ak takkante di yomb ci seen diggante ndax foofu la ak takkante gën a yombee ci ñu dul ñoom. Euh, bokk na ci itam ci mesure de prévention mooy fexe ba yombal itam maanaam ab sëy la ci li ci aju fexe ba euh, can gi maanaam ñu doon ñu ñu yamale ko bañ koo def ba bañ a fexe ba ba imposer ci société bi can yu seer ak itam euh, mayu njëkk yu seer ak yooyu su demee ba yëpp ñu imposer ko nga xamee dafa cher su itam nit ñi dañ koy daw te su boobaa itam day tasaare phénomène bi kon fexe ba simplifier loolu fexe ba yombal ko yooyu itam bokk na ci mesure de prévention yi nga xam war nañ ko jël mesure de prévention yi itam bokk na ci mooy euh, fexe ba ndaw ñi itam amum xëy loolu itam euh, état yi xam naa la engagé ñoom la lay gàddu seen ndodd maanaam fexe ba réew mi amum xëy ndaxte ku amatum xëy nag amoo ci loo jàpp doo mën a dugg ci yenn responsabilités yi rawatina góor bokk na ci itam mesure de prévention yi mooy fexe maanaam créer sos ay fondation caritative maanaam liñ naan jamiyaat xayriya yoo xam ne day dox ci wàllum social di dimbale nit ñi Eh, ci dox ci relation yooyu yi leen jafe eh, maanaam ñi nga xam ne dañoo lamb wala ak lamb di leen di leen yoot moo xam góor ak jigéen ñu maa a dem ci fondation yooyu dem gaaral fa seen bopp ne man kat dama bëgg borom kër naa lu yàgg uma ko maa ngi koy wër bu ba léegi kee itam ne man dama bëgg soxna maa ngi koy wër ba léegi mënuma ko am nangam nangam xaw naa jafe ci man fondation yooyu di yoon doon fondation yoo xam ne ci yombal ci yooyu moo koy tax a jóg yombal diggante yooyu maanaam ku lamb wala kuy bëgg a lamb ñu man laa yombal loolu ba nga mën a am soxna si nga bëgg te doon benn jafe-jafe ak critères ya nga ko bëggee yëpp demandé ko ñu wëral la ko te nga man ko am euh, amaale itam ay fonds yoo xam ne koo xam ne xëy na la tax mënut a am soxna mooy dafa ñàkk ñàkk gu ëpp ñu mën koo dimbale defal ko mariage ak yooyu yëpp ak la ca war euh, te fondation yi bari na surtout ci réew arab yi bari na ci lool yoo xam ne maanaam am nañ fondation yi te ñu réussir ci cas yu mel nii bu baax a baax na ci itam. ci mesure de prévention yooyu mooy jigéen ñi tam faaw ñu nangu maanaam seen boroom kër yi di am euh, lu ëpp benn benn soxna maanaam polygamie di am benn ba ñaar ba ñett ba ñeent ci man ci ñoom ndax itam euh, euh, maanaam polygamie itam maanaam dafa am ay sart surtout maandu yi ko xam ne mën na ko su ko defee maanaam jigéen itam di nangu loolu mu takk lu ëpp benn benn soxna ndax itam comme ni ñu ko waxee jigéen ñi dañoo ëpp góor ñi su fekkee kenn ku ne dafa bëgg a yem ci benn su boobaa day gën a may doole phénomène bii di ak lamb kon euh, xam naa loolu moo doonoon émission bi ci gàttal rek euh, lamb moom phénomène la boo xam ne waruñ koo def tabu ak ak ak sujet yu mel nii des ko war di ndax dafa doon yoo xam ni maanaam suñ ci jëlal suñ ci jëlal suñ ci jëlul ay mesures de prévention su tasaaroo ci réew mi mën na cee yàqu bari ndax réew yi tasaaroo maanaam yàqute gi foo ko takk man weesu na ko ndax ak lamb moom euh, day yàq ji ay jikko di di di yàq ab société fu mu tasaaroo kon nag warees na di ko waxtaanee di ci sensibiliser nit ñi ba ñëpp euh, xam phénomène bi ak euh, dayoom ak itam li koy waral ak li koy tasaare yooyu yëpp kon euh, xam naa foofu la ñu yemeen yemandi ci émission tey bi di leen jégalu ci guddal gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf seen émission tegal ngeen àndoon ceeg Darou Alim ak seen agence de communication Cocorico. par gàtt tànk bul siis walaay bul soxor bul sew boo sëy waroo diis walaay ji aar la ci diine sëyal te bul waaj walaay boo tollu na nga seet mel ni marse ngay waaj walaay ki ñu la jox bul la woowee dawal te ñëw raam loxo ki ñu jox bul la woowee dawal te ñëw raam walaay